lim ñu mën a woo mooy social xam nañ ko ci sociale bi yoon moom du Siteu mi nga xamante ne day départ convoi bu bari topp ko mu jëm arène nationale mais Siteu mi daf ñu woo ci li nga xamante ne mooy jaamu yàlla gisoon nañ sita ci jamono bi nga xamante ne ci la ndox mi bëree ci jàmm gën gis ngeen taxawaay bu rafet bi nga xamante ne am na ko ci tey woowaat nañu ci leneen ginnaaw loolu nag mooy daa don de bi nga xam ne woo nañu ci dañuy nuyu ñëpp bàyyi leen ñu nuyoo ñoom ñi nga xamante ne vraiment ñoo ñoo initiative lii nga xamante ni vraiment xew na fi ginnaaw loolu ñu bàyyi kilifa gi rek mu nuyoo su ko defee ñu wéyal waxtaan bi kilifa gi nuyu naa. waaw euh, maa ngi nuy ñëpp ñu fi teew. présenté euh, je m'appelle Ayouba Ibni Yamati Sarr nekk un habitant de Diamaguène donc euh, cité di nekk nekk sama cousin vraiment lii ñu ko doon waaj. ñu ko doon wàcc depuis des mois et des mois. donc euh, di wax alhamdulilah parce que lépp ci alhamdulilah lay commencé et si lay teeree. donc euh, journée bi nag mu doon journée boo xam ne population Dionewar euh, jàmm ak gënuwaas bi da ko doon xaar. donc mu doon loo xam ne aussi boo xoolee ñu fi teew ñëpp. ñëpp wuy si nañ Siteu boo xoolee ndaw mag ñi paay maire ñëpp wuy si nañ. donc on peut dire que ce 5 fév ce 5 janvier 2022 est une vraiment historique. pour Diamaguène parce que Siteu comme ni nga ko waxee tout à l'heure dans ton introduction yàgg na def lii yàgg na def ces actes vraiment social donc euh, bii da ko ñëw jëmal rek da ko ñëw jëmal te boo xoolee euh, may deret dafa doon loo xam ne nii euh, mbiru yàlla la mm. parce que c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer dans les laboratoires nit moo mën a am initiative yi maye ko parce que maa ngi doon dégg borom xam-xam di wax ne quand il offre une poche de sang c'est comme vous offrez une âme parce que day mel ni da ngaa bi humanité bi dafa soxla actuellement ces genres d'actes mu doon loo xam ne aussi ñu ngi koy saluer ñu ngi koy saluer Diamaguène mënul fay Siteu laay wax parce que vraiment mu ngi taxawu Diamaguène saa bu Diamaguène soxlaa rek wuy si na ko euh, ñu koy remercier di ko ñaanal yàlla fi mu jëm aussi yàlla euh, jëmmale ko foofu ba nga xam ne daal incha allah pour ces euh, combats yi nga xam ne mu ngi ñëw yàlla yàlla yàlla yàlla taxaw ko ci daal acte bii ni ma ko du loo xam ne population ja Diamaguène bi da koo bett parce que fii la dëkk def nañ communication def nañ lépp aussi mu doon loo xam ne daal actuellement nii contentement lay nekk pour ñun daal. Mm-hmm. Euh, pour Diamaguène pour ñëpp vraiment loolu daal la amoon lu may introduire. Euh, di kontaan ci ñëpp rek di kontaan ci média bi di kontaan ñi fi teew ñëpp di kontaan ñi nga xam ne bëggoon nañ teew. te actuellement seen temps mayu leen ko. Mm-hmm. donc di kontaan vraiment ci médecins yi aussi. parce que ñoom aussi teel nañ ñëw teel nañ def liggéey bi donc di wax alhamdulilah daal waaw mu ngi noonu. jaajëf am na solo euh, kilifa. waaw maa ngi lay fay en même temps di fay mbooloo mi fi ñëw yëpp ak média bi ñoom ñëpp. Hmm. Euh, initiative moom franchement dañ ciy kontaan koi et que gis naa ni jeunesse de jeunesse quartier bi ñëw nañ massivement def don bi. Hmm. en euh, ñoo nuyu di sant di gërëm ki initier action bi quoi action Donnons sant bi. Mm. muy Litter Sitter ñoo ngi siy gërëm di ko sant. au nom du au nom du directeur du centre et des chefs de service. Mm. ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo xam si ñëw nañ def Donnons Sang bi. Mm. waa def Donnons Sang c'est une action humanitaire. c'est sauver des vies en même temps. parce que y plus de cinq cent cinquante poches yoo xam ne si chaque jour ay nit danuy ñëw pour soxla deret pour mën leen ko jox quoi. une fois ngeen def action bi da ngeen di jëmle chaque jour pour ñu am nombre de poches pour mën a sauver des nit quoi des mm-hmm. personnes yi. Mm-hmm. waaw ñan ngay wax ñi nga xamante ni ay mbër lañ euh, dëkk ci ci gox te bu ñu wootee mbooloo mu bari uy si leen te ngeen soxla leen ci lu mel nii. waa lii opportunité la une fois yàlla may la doo wootee nit ñi fekk si la da nga si war a gën a jaamu yàlla quoi en fait gën si def ay action yoo xam ne si. ñëpp si gis seen bopp. comme lu mel na don de sang c'est sauver des vies en même temps. waaw ñu mel na ñoom ñoo ngi woo ñëpp pour ñu def na cité comme li mu def. ñoom ñëpp ñu def don de sang. ak yeneen action yu nuru comme yi. waaw. ñu lay jaajëfal baax ok ok jërëjëf kontaan nañ trop ci yéen. nee na mën nga xam bi ñu ñëwee léegi ñaata poste la ñu waaw on a plus de soixante dix neuf quatre vingt poches. Mm. waaw on a quatre vingt donneurs. Mm. macha allah kontaan nañ trop. Mm-hmm. waaw ak ay ak ñoo xam ne si sax peut-être bëggoon na nuñ def don mais heure bi moo leen ko mayul quoi. Mm-hmm. waaw ndax lu muy gën tànk rek day xaw a xaw a doy waat mm-hmm. moo tax. mais kontaan na trop. kon teel a ñëw bi am na ci teel a ñëw am na solo. Mm-hmm. teel a ñëw am na solo. waaw la prochaine fois na nit ñi gën a teel a ñëw. waaw ñu mën a am poche yu bari quoi. ñoo ngi leen jaajëfal yéen ñëpp di gërëm la lutteur Siteu ñu initier action bi quoi kontaan nañ ci trop. waaw jërëjëf.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 ak kum fu mu mun a nekk ah ñu teel a génn teel a ñëw. waaw mais daal kontaan mënul weesu lii. di remercier nag staff bi nekk si ginnaaw ñëpp. Mm. duma ma tudd tur. Mm. mais su ma waxee staff bi rek remercier naa ñëpp. Mm. di remercier aussi tamit journaliste yi. di wax ne kontaan nañ di wax ne maa ngi jox waxuma la sa mbëri. mais ku mun a doon ba ci journaliste yi bu la leeree ne boo leen dajalee seen bopp ñu ñu mat ay quelque nombre de personne mais ñu def geste geste noble ñun ñëpp.